salaamaaleykum mbokk yi man maa doon def vidéo bi léegi di wane fii état bi ñu nekkee gis ngeen nit bu dox sax gisoo leen ko te instant yi cas bi day gën a yokk ñun ñu ngi nii ñun quelques sénégalais ñoo fi nekk instant yi man possibilité bi ma am nii sax génn sama biir dormitoire yi sax am na ñoo xam ne amatuñ ko dañ leen tëj ci seen biir université yi. génn sax munuñu ko lekk yi leen di jox sax dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko planifier par horaire léegi man damay gis yenn propos nit ñi naan ñi ngi si jàmm gars yi nit ñi waaj a man gisaguma loolu yëpp te man maa ngi nii fii laay dund fii laay dund ñi ngi nekk di dund lu metti lu méttee méttee métti waaw loolu nag laa buggoon mu leer instant yi ñun supermarché bi ñuy dem sax naan ñu ngi def di wut ay ravitaillement risque bu métti la risque bu métti la essence yi dëkk bi dara dawul amul oto amul dara parce que gars yi xam nañu risque bi mu nekkee léegi nag bu fekkee nit ñi dañuy toog Sénégal naan ay nit ñi ñi ngi ci jàmm Sénégal xaw ma la nag la c'est parce que dañoo nekkul ci milieu bi man mi nekk ci milieu bi nag man maa leen ko mën a wax xam nga sama yére gi nii fii Wuhan la Wuhan Wuhan laa nekk waaw dama bëgg mu leer si bopp ñëpp te man maa nekk fi nga xam ne fii la virus bi ëppee. donc ñi fi nekk naan nit ñi ñaa ci jàmm c'est parce que dañoo nekkul fi affaire bi nekk waaw loolu laa bëggoon nit ñi xam te ñu bàyyi nekk fii naan ay di def ay rumeur yoo xam ne wóoru leen boo leen lu leen leer rek ngeen laaj ñu koy dundu waaw te essence yi denrée alimentaire yëpp yokku na yëpp yokku na te essence yi supermarché yi seen approvisionnement léegi mu jeex ñun déjà benn danger rek dafa am mooy que ñi ngi génn di nekk en contact ak nit ñi bu ñu demee supermarché te mënuñoo toog suñu biir kër yi te virus bi mën na la contaminer ci n'importe quelle façon imaginel ñaanuñu ko yàlla nit am virus tufli bu tuflee nga dugg ko sa dàll sax nga dugg ak moom sa biir néeg yaa ngi en danger xam nga léegi nan lañ nekkee si jàmm nan kan moo nee ñu ngi si jàmm kan kan ma dégg ñi ñi di wax ay waxu ay renforcement financier ñun soxlawuñu xaalis ñun ku ñu jéem a dimbali ñu génne ñu fii yóbbu xaw moo xam fu mu ñu yóbbu même bu ñuy met à quarante ñu mettre ñu ko mais nañ ñu génnee yóbbuñ ci parti bu safe boo xam ne ñu dinañ mën a nekk ci jàmm waaw loolu laa laa bëggoon mu leer wasalaam. thank you